comme que si jamono kan bi lañ nekk ak jamono élection locale yeeg yooyu noonu euh, lan ngay wax di ko ñaax suñ suñ gaynde yi nga xamante ne ñoom ñoo dem fële ci Cameroun te suba rek ñu war a amal match te fu ne nekk nii métti trop daal. Euh, li may wax gaynde yi mooy. Mhm. jàmbaar lañu benn. Mhm. kenn du ni mënuñu fubal. ñaar. Mhm. kenn du kenn du ne amuñu expérience. Mhm. muy ñett. Mhm. kenn du ne ñu international. parce que ku ne xam na ni Sénégal équipe bu Sénégal amul benn équipe si Afrique bu ko mën. donc kon mën nañu fubal. Mhm. équipe nag boo ko yoree mu ne si sa réew. da ngay yow yow euh, population mi ne si dëkk bi mboolum kuy sëriñ. wala nga bañ nekk sëriñ. dañu war yéen a xale yi jàmm bañ leen bañ bañ euh, bañ leen bëgg leen war leen a jàppale. sëriñ bi nay ñaan. ki am xam-xamu bind na bind ñaan ku am xam-xamu eh, leneen pour mhm. ñaanal gaynde mhm. nañu leen ñaanal te xam ne mën nañu football mhm. ñaan nag ba àndee ku mën football rek jàmm am waaye bu fekkee ne xale yi dañuy football seeni moroom yi parce dañuy do ñun dañuy dox di dégg am ñoo xam ne dañuy wax waaye gaynde duñu dara waaye ñooñu dox gaynde yi duñu dara ay dox ñooy dox si mbedd mi xamuñu dara si football yow nan la sa morom di fubale fii ba ñu jël ko yóbbu ko bitim réew di ko fay alal jodul jeex yow ñu bàyyi la fii nga ne kee amul mënul dara <laughs> yow mi ne fii yaa mënul dara yaa xamul dara nañu bàyyi xale yi di fu ñu waxee di wax loolu <laughs> nit ñëpp dañu encouragé seen équipe xale yu góor yi nekk fii di di di saboté équipe bi dégg nañu bàyyi saboté équipe bi te te te fas jom ñii fas jom ba ñu leen di fay ay millions leen millions tax ñu bëgg leen ko añaane di xamuñu dara nangam ak nangam nañu bàyyi nit ñi ñaareel ba ñaareel mm. ba mm-hmm. nun ñëpp noo war jàppale Aliou Cissé. Aliou Cissé surtout Aliou Cissé waaw. toujours nit ñi am na si ñoo xam ne. Mhm. dañuy wax naan Aliou Cissé Aliou Cissé xamul dara xamul dara Aliou lu tax xamul dara. Mhm. bu xamuloon dara dana nekk di liggéey di liggéey ba di dem qualifier euh, coupe du monde. Mhm. ñu ne xamul dara. lu tax xamul dara ñan ñoo xam dara ñan ñoo yore woon jëluñu fi woon tubaab. <laughs> wallaay tubaab boobu est-ce que dem na coupe du monde. ñu bëgg naa Aliou Cissé xamul dara du ñu ko ñaanal rek jàppale ko te yàlla tax. Sénégal yi li may wax mooy ñun ñëpp nañ leen ñaanle Aliou Cissé jàppale ko ñi nga xam ne dañu xam xam football. Mhm. te doon football ni ñu ko dimbale ànd ak moom rek jàppale ko te yàlla tax. Mhm. entraîneur yi nga xam ne ñoo fi nekkoon doon yore équipe bi di dem. Mhm. bu ñu ko bàyyi. ñoom ñoo yore woon équipe bi di dem. bàyyi nañu leen jël nañu Aliou Cissé mais ñoom bu ñu xool loolu. nañu retourné ñëw ànd ak moom rek jàppale ko parce que xam ne Sénégal boo amee ndam. ñëpp la la ndam li pour ñëpp la. mais même entraîneur yi fi yore woon équipe bi équipe bi. nañu si ñëwaat rek jàppale Aliou Cissé rek xam ne yàlla moo ko ko jox. mais bu ñu ko bàyyi moom kenn rek. waaw. lu bare nag mu ngi am Sénégal kenn mënu koo wax. réew yëpp nag bu seen équipe di football réew moomu yëpp dañuy bokk maase sëriñ baak population baak ñëpp dañuy ñaanal équipe boobu. na Sénégal di def loolu ñu xool senegal kenn dàq ko football loolu laa leen di ñaanal yal na yàlla. ak yonent tabak ak Seydi Aji Malick si. ak Serigne Babacar Babacar si. Serigne Touba képp kuy tere bàyyi laay ñaseen ma wax sama Serigne na ñaanal équipe bi muy waa Tivaouane yëpp. ak waa ñase waa Ndiassane yëpp ak waa ñaseen yëpp. ñaseen yi surtout Baba Lamine maa ngi koy wax ne ko man Mamadou Pène sa taalibe man nee naa na nga dimbali équipe bi ñaanal ko waa kër sëñ Touba euh, sëñ Karim nañ ñaanal équipe bi. Mhm. Tiwaawoon nag moom Tiwaawoon gépp man fa bokk ndax. Mhm. ñun waala waala Tiwaawoon la waaye na Tiwaawoon yëpp ñaanal équipe yëpp daal ñu ñu ñaanal équipe bi. ndax équipe bi gagné. di profité nag di nuyu mbokk yëpp samay xarit yëpp. Mhm. waaw. di wax ni mësuma toog si télé. te gërëmuma ay nit. bu ma limee nag damay juum. parce que man senegal gépp dañu ma bëgg yéene ma jàmm. waaye dama am doom joo xam ni. Mhm. dama am ñetti doom ba ñeent sax. Mhm. première doom jaasu sare bi nekk Amérique. du ma toog te tudduma ko man mi toog di wax ak yow man bi. démb mhm. la woon man papaam laa. démb bi dem na maa fi nekk maa ngi koy gërëm di ko ñaanal yàlla. am naa doom bu nekk asalem. ñu ko wax Souleymane Diallo. comme papaam la ma jàpp. Wally Seck la même chose. Wally kon yow am nga relation ak Wally Seck. Wally mooy sama meilleur doom bu gis naa ko ba tey waaye mosuma ne ko defal ma dara parce que Wally sama doom la li baax si man xam na ko. moom am am ngeen relation yéen ñaar yéen a ngi toog di waxtaan yéen a doom la xanaa. d'accord sama sët la sax. Hmm. parce que papaam moo doon sama musicien. ndeysaan ba may musique man papaam moo doon sama musicien. man kër maamam Thione Seck sa gol tàpp. Hmm. lu fa mas a yàqu si nii si maçon man maa ko doon defar. temps fekk waale mu ngi fa. boobu waale ngi nekk xale bu ndaw. ndeysaan waaw sama doom la nag maa ngi koy nuyu di ko gërëm. Mhm. di ko sant. noo xam naa ni bëgg na ma defar. man maa demul si moom. foofu dañ fay taxaw benn ah, ah, dañ fay taxaw tuuti noo gisee comme Wally comme que sa doom la critique yi ñu koy critique si Sénégal noo gisee di si wax si moom yenn yoo xamante ne mooy loolu. yonent bi ndagam dafa amoon ay bañ. Mhm. Wally bañul loolu. nit ñoo war a am xel. xam ne nit lu ko yàlla may. dañu koy gërëme ndeyam ak baayam bañ mënu koo dindi. waykat bi woy na ko mbër mi sax woy na ko. loolu lu la yàlla may. gërëme sa kan gërëme ka sa ndey bañ du ko dindi. day ko war a ñaanal bàyyi di ko xas wala di ko wax leneen. moom it rasulaay nag ndaka moo amoon bañ. waxuma laa la bëgg am na ku la bañ sama doom waali dama lay wax rek ne la lu la nit man di bàyyi te te bu ko wax dara gën koo sax bëgg nga xool ma la wax koo boo ki gën a bañ yow la yàlla di gën a may nga tekki ah, doomu aadama noonu la mel ki la bañ boo bëggee di gën di avancé ki la bañ gën koo bëgg man nag man sa papa sa maam man maa la wax ni la danga maa bëgg si sa xol moo tax télé bu ma mës si invité nii ma tudda Wally nit ñi ne daañu ko gisee lu ne waaye bu ñu ko gisee leneen mhm. wayaanu ma la wayaanu ma man du ma wayaan wayaanu ma mhm. mais dëgg laay sama doom sama xarit mhm. dañu la nga ni man nga gën a bëgg man tam ku la bëgg laa man yow laa gën a bëgg man tam waaw yal na la yàlla labal cat làq la fu yàq yeggul dàqal la seytaane musiba balaa gàttal ma jël ñëw réew mi nag nañu xam ni Wally képp ku ko loo gën a bañ koo coow yàlla gën koo jox bay bay rek waaw maa ko wax tey man fii fu ma xaw ma dara nag mënuma dara mais yàlla am na xam-xam bu ñu ñu jox mhm. xëy na cof naa sa tuuti mhm. loo ko gën a bañ mu gën a am bàyyi képp koo xam ne da nekk bañ bañu waali mhm. bay boo nga def doucement gën a bañ dafay waali day gën a am succès loolu rek laa leen bëgg a xamal lan ngay waali nag jàpp naa la bi ba ma la jàpp yàggal sa papa nag dafa la sas keroog bu ñu ko invité tere mu ne man wàlli laa jox samay lenge ndaw si ne ko waaw lu tax nga ne wàlli nga jox sa lenge mu ne damaa xam sama doom wàlli damaa xam ne bu ma ko joxee lenge yi famille bi du tas ndax dina leen wuuf ndax am na xol boobu am na xolu yërmande boobu ndaw si laaj ko mu ne ko waaye yow lu tax waale xanaa waale la gën baax mu ne mu ne ko moom a gën baax foofu waaye la mu man man mii di bàyyi mënuma ko lekk wala man man man. ndeysaan. Thione Seck kenn du moom billaay wallaay. nit ku am xam-xamu biir dem na mooy Thione Seck. poète si Sénégal ñett ñeent la woon. Mhm. Laye Mboup Ndiaga Mbaye Thione